Cheikh Diagne Gomis moom leen gis mu ne bëxër nit yàq émission bi ñëw toog mu ne wax lu ne Pa Assane Seck moom day bàyyi ba huit heures moins mm-hmm. mu ne la man maa ngi doog génn sama kër loo ci mën jéemoo la si lenn. nañ leen seetaan rek alors ñun ñu ñu ñu wéyal ñun de toute façon santé c'est toujours passionnant dañu dem ba heure bu ñu neexee alors euh, maam Khady Diéry Fall tey dañuy waxtaanee quand même ci endométriose. Mm. Euh, maladie la bu sonal jigéen ñi tey ñu bëgg ci mm. mi ñu seesi tey di gynécologue obstétricienne. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. ni nga ko waxee noonee la demee ñu fas yéene ci ànd moom waxtaan ci lu ci endométriose nga xam ne nii sonal na jigéen ñi te mu ngi def ay ravage moo tax na nag ñu ne tey il faut ñu wax si comme que wér gi yaram dañuy euh, xool saay su nekk rek lépp loo xamante ne bii euh, mu ngi faagaagal askan bi ñu ñëw wax si ci lépp luñ ci mënee rek ba nga xam ne nii dinañ ci mën a fàggandeku mm. comme disait l'autre euh, fagaru moo gën faju donc moo tax tey mm. nag ñu am professeur maam jaara ni ko présenté mm-hmm. ñu fas yéene ñëw waxtaan ci endométriose gannaaw bi ma la bàyyee nga nuyu ba pare nga wax ñu lan mooy endométriose endométriose. waaw euh, merci beaucoup euh, soxna Khady Diéry Fall maa ngi euh, delluwaat di leen nuyu di nuyu seen téléspectateur yëpp. Mhm. di leen gërëm di leen sant ci invitation bi ñuy permettre ñu wax ci mbirum endométriose. Mhm. endométriose dafa nekk feebar boo xam nekk ni xaw na jaaxal fi mu nekk nii sax société scientifique bi parce que. Mhm. dañ koy gis muy gën di bëri di ñu won kanam yu gën di. Euh, bëri euh, et euh, di am benn impact bu important ci qualité de vie ku jigéen ki alors su ma la mënee expliquer endométriose mooy lan damay jël analogie ñaari géej yooyu ñuy wax ne dañoo laalante te benn du dugg ci beneen moroomam organe yi nit yaram mhm. organe yi ko composé noonu la mel day am mhm. ay tissu yuy tegaloo te benn du dugg ci moroomam butitu njurukaay noonu la mel dafa am ci biir lu ñuy wax endomètre mhm. endomètre boobu foofu la ëmb bi di dugg foofu lay lalu mhm. li ko wër di muscle bi moom la ñuy wax myomètre moom mooy contracté wu bu nit ki di wasin mhm. ak ci kaw lu ko enveloppé lu ñuy wax séreuse donc benn dañuy laalante mais benn du dugg ci moroomam endométriose feebar la boo xam nekk ni endomètre bi day dem dugg ci biir muscle bi mais moom la loolu la ñuy wax adénomiose benn forme la ci endométriose beneen forme bi mooy day dépasser muscle bi day dem dugg ci yeneen cër yi mën na laal ovaire yi mën na laal trompe yi mën na laal butit normal bi mën na laal bi euh, butit bi nga xam ne ni moom mooy denc saw bi mën na yéeg estomac bi ba ci dënn bi ba ci ay bët donc day dem fu nekk cellules yoo xam nekk nii fu nekk lañuy dem léegi nag loolu dafay indi ay jafe-jafe yu bëri. Euh, yoo xam nekk euh, xam naa dinañ si ñëw. Mhm. Euh, ci ci ku jigéen ki parce que cellules yooyu dañuy réagir. selon mhm. cycle bi day réagir ci yaramu ci yaramu nit ki. Mhm. alors da di feebar boo xam nekk nii bu njëkk dañ doon wax ne feebaru tubaab la. nit ku weex moom moo koy am. nit ku ñuul fibrome lay am. ba nga xam nekk ni euh, nit ñi xamuñu ko bu baax fii. mais on se rend que nit ku ñuul daf koy am vraiment te boo jëlee fukki jigéen am na kenn ku ko ci am. Euh, buñ ñëwaatee ci signe yi di ngeen xam nekk ni ñu bëri xam ngeen leen ci seen entourage certainement ñoo xam nekk nii certainement loolu lañ am. Mhm. soo gisee soo jëlee euh, téeméeri jigéen ñoo xam ne dañuy faju pour wut doom. Mhm. juróom juróom benn fukk yi. Mm. am nañ feebar boobu nga xam nekk ni quand même euh, du loo xam nekk nii mm. dafa dafa raar mm. et euh, drame bi mooy que ni retard diagnostique bi dafa dafa dafa bëri c'est-à-dire que entre momo bi feebar bi di déclaré wu ak nit ki moment bi muy xam ne lii la am bi ñu defee études yi daf ñoo won ne 18 ans nit ki dina toog 18 ans ak feebaram mm-hmm. su nga xam ne feebar bii la am entre temps feebar baa ngi dox mi ngi law mi ngi def ay dégâts ci nit ki. nee mhm. mhm. nga 18 ans kon euh, symptômes yi lan la. alors symptômes yi euh, li ci gën a bëri. Mhm. biir buy metti euh, jafe-jafe pour am doom. ak ay saignements yu important. biir buy metti moom mooy symptôme bi nga xam ne moo gën fréquent mais du yëkkati nit ki. loolu mooy problème bi bu ñu koy diagnostiqué c'est parce que nit ki dafa ñëw parce que dafa bëgg a faju pour am doom ah. parce que euh, dañuy tàmm di wax ne ku jigéen ki buy gis mbaax biir bi day metti mm-hmm. nit ñi foog ne c'est normal c'est pas normal mm-hmm. c'est normal que muy xaw a diis tuuti ngay am tuuti cramp mais douleur bi am na fu muy toll moment bi ngay fóot loolu c'est pas normal te da nga ko war a saytu ce qui fait dafa am benn population boo xam nekk nii moom la ñuy wax adolescente yi nga xam nekk ñi ngi commencé euh, gis faute. Mm-hmm. bu ñuy jàmbat ne seen biir day metti ba parfois ñuy wàccu walla ñuy xëm il faut ñu yóbbu leen hôpital ñu teel ko saytu parce que dafa am gàllankoor yu bari yu mu leen di indil après surtout ci seen fertilité suñ ko suñ ko teelul xam. Mm-hmm. donc nit ñi dañuy dund ak mettitu biir moomoo bi nga xam nekk nii ñi ngi fóot ñu naan leen dafa normal bés boo sëyee bés boo amee doom dina dañ. waaw alors que loolu c'est pas normal. kon nga baal ma dañuy jaawale règle douloureuse ak euh, endométriose. règle douloureuse en général endométriose la moom ngay ah. tëye ba ba nga koy éliminer. da douleur bi am na fu muy toll parce que nit ki bu ñëwee dañuy natt douleur bi. Mm. dañ koy wax mu mu nattal ñu douleur bi moom bu ñu bu moom nit dina mën a xayma douleur am. Mm. am na douleur bi fu muy toll. da ngay xam ne ni lii certainement endométriose la te da nga war a set endométriose. et loolu du yëkkati nit ñi souvent parce que dañuy jàpp ne. règle douloureuse c'est normal bés bu ma sëyee dina dañ. et euh, loolu mooy tax nag retard diagnostic bi important parce que moom mooy siñ bi ci gën a patent. règle douloureuse lay doon au début ba ci yàgg mu nekk douleur douleur boo xam ne c'est constant tout le temps yaa ngi am métit et euh, dina tax. da nga ciy gis ñu démissionné seen liggéey parce que mënatuñu nekk ci euh, service boo xam ne tout le temps ñi ngi absenté wu. te loolu da nga koy seetlu même ci école yi. ngay gis mhm. xale yi nga xam ne dañuy absenté wu chaque mois souvent ñu absenté wu attention c' est un signe il faudrait mhm. aller consulter parce que mën na dem sax ba indi leen abandon ci jàng bi. Mhm. danga nga ciy gis magum jëmm yu jékki-jékki démissionné parce que mënatuñu tout le temps di ñëw di indi certificat médical dañ ma hospitalisé woon dañ ma doon defal perfusion wala ñuy ñëw di liggéey. Euh, seen yaram du leen permettre ñu liggéey liggéey bi correctement tout le temps ñi ngi tëdd Mm-hmm. day indi isolement seen kër parce que dañuy nekk seen néeg tout le temps ñi ngi am métit am métit boo xam ne dafa mel ni métitu mat nga koy am tout le temps day dem ba yow ci sa bopp dalay isole ce qui fait que ñooñu dañu soxla prise en charge psychologique boo xam ne c'est mm-hmm. très important mm-hmm. ci ci ci ci faj bi dañuy dañuy tout le temps ñi ngi xaar même suñ amul douleur ñi ngi naan <laughs> douleur bi dina ñëw donc seen vie day tourner autour de la douleur da nga ciy gis koo xam ne ki nii 18 ans la am ñëw ne la dindil ma lépp dindil ma bututu njurukaay bi mënatuma hmm. parce que douleur bi moom moom mooy toll foofu mooy tollu foofu ba nga xam ne doo bëgg lenn lu dul dindi lépp loo xam ne ki nii c'est en rapport ak hmm. ak ak ak douleur boobu hmm. donc euh, loolu mooy premier signe bi euh, mooy douleur pendant les règles douleur pendant les règles il faut consulter ba ñu mën a éliminer que di lii Euh, du endométriose c'est c'est c'est te loolu mën nañ koo saytu euh, xool ko mm-hmm. deuxième signe bi mooy nag li nga xam ne mooy indi nit ñi ñu consulter mooy taxawaay ñu ngi sëy nañ lu yàgg taxaw mm-hmm. bu boobaa bu ñëwee pour consulter mm-hmm. ci li ñuy njëkk ci li ñuy saytu mooy endométriose bopp parce que daf cee bëri ñoo xam ne ni da indi indil jafe-jafe jafe-jafe jël ëmb euh, beneen signe bi mooy Euh, booy gis max muy bëri li ngay xëpp deret muy muy bëri trop loolu tamit siñ la am na yeneen siñ nit ki di sonn day day yeewu du mën a jóg parce que dafay sentir benn benn fatigue pourquoi day sentir fatigue parce que mm. dafa yàgg tàmm dund ak benn douleur ba day am benn fond douloureux boo xam nekk nii suy suy même suy nelaw mi ngi koy am ba nga xam ne du am sommeil boo xam ne da koy réparer mm. donc day yeewu ak benn benn benn fatigue bi mm-hmm. bu jàppee yenn organes yi mën nga am yeneen signe mën nga am na ñoo xam nekk ni. Mhm. Euh, suñuy euh, tuur ndox day ànd ak deret parfois surtout bu dee euh, faute bi mu ngi waaj a ñëw wala suñuy mhm. tuur ndox muy metti donc tout dépend ci organes yi muy jàpp parfois biir bi lay sol deret ba mu fees. wala mu mhm. sol dënn bi deret. et donc si signes yi bëri na mais li war a gën a alerte nit. mooy ngay fóot biir bi di metti di metti ba nga xam ne sentir nga mu jéggi dayoo là il faut mhm. consulter dina ci am ñoo xam ne nii dañuy mhm. jékki-jékki dootuñu sax dawal mënuñu dawal oto. Mhm. parce que dañuy ragal douleur bi attaqué leen parce que daf leen dal. ngay dawal ba ci yàgg douleur u mettitu mat attaqué la. mais accident xaj na ci. bu la dalee benn yoon ñaari yoon. da ngay gaare sa oto di jël transport en commun pour mën a pour mën a liggéey donc dafa. dafa am daal impact bu mag boo xam nekk nii. mi ngi koy def ci jigéen ñi euh, suñ ko teelul xam. Mm-hmm. impact boobu day day day weesu douleur bi day dem ba jàpp la psychologiquement ça da ngay dem ba nit ki boo jàkkaarlook moom gis kanam gi rek xam ne kii kanamu souffrance la yore mm-hmm. euh, da leen di jàpp sur le plan la fertilité également parce que day mm-hmm. jàpp ovaires yi day jàpp trompe yi bouché ko et dafay tax ba utérus bi du mën a tëye ëmb correctement lan mooy lan mooy indi lu ni mel lan mooy facteur yi kay favoriser ba tax comme jaxasoo boobu ngay wax am ba indi feebar bi alors loolu moo umpule communauté scientifique bi kenn xamul ñi ngi seet nee nañ peut-être problème bi ci ci gènes yi la génétique quoi euh, waaw mais amul benn facteur bu ñu identifié boo xam nekk nii moom lañ mën a duut baaraam ne lii la xam nañ ne daal mhm. que ni euh, certainement euh, yaram bi nu muy reconnaître loo xam ne ki nii daf ko war a rey mu rey ko mhm. maanaam immunité am na problème immunitaire ci ci ñooñu mais mhm. wax exactement lii moo ko mën indi loolu ba léegi communauté scientifique bi mënuñu ko wax. mais du am ñu muy dab kon parce que looy judduwaale la. continuer mais du am koo xam ne nii normaloon na tëba tëb rek mu dal ko parce que bu fekkee ne am na koo xam ne normaloon na rek mu tëba tëb mu dal ko mooy ne am na am na lu ko indi wala genre yooyu noonu. alors très bien li ko indi mooy règle yi. Mhm. dès que nit ki mi ngi commencé faute. Mhm. bu dee dafa nar a am endométriose. Mhm. processus bi commencé na. Mhm. day silencieux nag au début. di ñëw nànk-nànk di évoluer plus cycle yi di régulier. menstru yi di ñëw plus lésions yi di gën a jàpp fu nekk. plus symptomatologie bi di yokk donc peut-être mën nga ne dala dab mais dabu la judduwaale woo ko certes dafa ñëw moment bi nga xam ne ki ni commencé nga. Euh, gis faute. mais di installé wu nànk-nànk di évoluer nànk-nànk donc symptomatologie bi di yokku nànk-nànk mën nga toog ay 5 ans 6 ans après nga soog ko sentir ne yaa ngi am ay mettit mettit yii c'était pas comme avant léegi bu day ànd ak wàccu da ngay xëm da ngay soxla ñu yóbbu la perfuser la sinon mettit bi du sedd moment boobu mu ngi commencé wane ay signam mais installé wu na un peu avant alors bi moom mooy peut-être docteur mooy que bu ñu koy dem ba koy euh, découvrir malheureusement day fekk euh, ci li ma la déggee dafa xaw a trop parce que ñu ci bëri dañ koy jaawale ak ay règles douloureuses ak yooyu comme idée sénégalaise ba mu dem a dem dem ba xëy na ngay dem am borom kër malheureusement su fekkente ne da nga am borom kër tardivement lage de 30 ans wala 32 ans quelque chose comme ça dafay gën a pire est-ce que jamono jooju mën nañ ko faj. alors euh, endométriose du loo xam nekk nii da nga mën a faj day nekk loo xam ne da ngay nekkaale. ak moom euh, dinañuy am loo xam ne da koy calmer xam naa bu ñuy duggee ci faj bi dinañ si dugg bu baax. Mhm. mais lu koy calmer nga mën a am loo xam ne que nii dootul continuer di progresser wu xam nga c'est ay cellules yuy multiplier wu. Mhm. yuy yokku di attaquer ay organes. donc mhm. mën nga am loo xam ne que day tax dootuñu multiplier wu nga calmer leen mais soo ko jëlatul mu jógaat. donc nga faj ko ba dindi ko carrément à moins que mu nekk intervention chirurgicale maanaam opération. Euh, du deñ euh, carrément euh, dina indi ay jafe-jafe waay parce que su yàggee noonu après dafay attaqué ovaires yi da ngay gis koo xam ne ki ni dala naan man dama tàmm am ay kyste saa ma demee def échographie ñu ne ma kyste en général kyste yooyu très souvent su dul kyste fonctionnel yoo xam ne c'est pas grave kyste endométriosique lay doon yoo xam ne ki ni endométriose moo koy indi te loolu dafay tax day wàññi nen yi ba nga xam ne ki nii nit ki nga xam nekk ki nii mënoon na dafa waroon ménopause cinquante ans da nga koy gis trente ans mu ménopause hmm? mën na ko indi ba nga xam ne ki nii hmm. boo boo jëlee pays bu mel ni France léegi dañu def politique boo xam nekk ki nii suñu la diagnostiqué ne la yow mi endométriose nga am dañ lay dencal say neen congelé ko hmm. et donc là loolu aussi c'est possible ñi nga xam ne nii xam nañ ne am nañ endométriose Mm. mën nañu congeler see see seeni nen pour que après ñu mën ko utiliser parce que dafay gaaw a jeexal. am na Sénégal Sénégal amagu ah heureusement faut euh, c'est important ñu préciser am na Sénégal am na Sénégal. Mm-hmm. dañu ko conseillé hmm? gis nga déjà rek euh, aspect euh, psychologie culture bi adapté ko ci ñoom ci seen xel rek il faut loolu d'abord parce que déjà euh, c'est sûr que ne réaction bi na am la sénégalais yu bëri di am naka la ba jëlee ay nen di ko congelé genre yooyu noonu xam hmm? ah mais mais imagineel nga marié à nga toog ba 30 ans marié woo te nga am loolu noonu mooy ne exactement exactement. Ah, ci ginaar laa ko xamee. boo may boo may soog ñëw xam nga ne man dama dégg ay nen. ci ay nen bu ñëwee pêche. Ah, dama ñëw fekkee ngeen wax ay. xam nga wolof la waxuñu nenu ginaar waxuñu nenu picc. voilà non non il mu leer. am naa ay am naa ci ay morom yoo xam ñu ngi toog di seetaan. ovule ovule lañ bëgg a wolof waaw c'est que xam nga nag ovule. Euh, pour nga expliquer pour nga ne nen. gars yi duñu comprendre bu baax. waaw waxal ovule rek. xam nga moo gën parce que boo nee nen déjà man man man bi ma déggee nen nii dama ne muy nen ak nit xam nga. loolu la de loolu moo tax la nag kii da léegi man kañ. Euh, nen bi nag la jël ah, congelé mooy question bi. voilà waaw en oh, en ah, ah, congelé ovule. waaw da koy génne si nit ki. Mhm. dencal ko waaw ah, loolu am na. dem dencal ko ko waaw waaw loolu am na. voilà loolu am na. loolu moom loolu am na. gannaaw ba nga perturbé émission bi. non fa mu leexal fa mu leexal dëgg la. ñu leexal alors ku jigéen ki buy juddu. dafa am benn stock bu muy am. ay nen la mhm. ay nen la ovaire tubaab la non mais il faut que ñu wax ko waaw. sama maam bi nekk fële ci ñaari ñaari ovaire yi dafa am benn stock. boo xam nekk nii da ci am benn quantité boo xam nekk nii mhm. ay nen yu sew ñoo ci nekk. Mhm. yu muy perte. au fil des ans. bés bu demee ba am en général cinquante ans ci la koy perte ba jeex moom la ñuy wax ménopause. léegi dafa am yenn procédure yoo xam nekk nii nit ki ni mu leen di perte day gën gaaw. ba nga xam nekk nii ménopause bi mën na ñëw avant âge ménopause bi. Mhm. te lii ñuy wax endométriose ci la bokk. pourquoi parce que mhm. dafay attaquer ovaire bi daal ci def ay kyste dal di yàq stock ba fa nekk. ba nga xam nekk ni boo jëlee ku jigéen ku am endométriose ak ku jigéen ku amul endométriose même âge. Mhm. boo compter parce que da nga koy gis échographie. boo compter li ñu am ci ay nen du benn. kële mooy ki am endométriose mooy gën a tuuti waxtaanoon nañ ci ci waxu euh, euh, procédure fécondation in vitro mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. presque ci même procédure bi la loolu la ñuy wax préservation de fertilité junjoon naa ko fi la la la dernière fois préservation de fertilité ci ñëpp ñoo xam nekk nii soit ñi ngi jël yenn traitement yoo xam ne nii dafay yàq euh, seen fertilité après wala ñu am feebar yoo xam ne nii seen fertilité day yàqu après am na procédure yu ñuy def ay injection yu ñuy joxe. après dem bloc génne ko mu nekk ci benn liquide doo ko gis nag. laboratoire bi ñoom ñoo koy gis parce que ñoo koy def ci microscope. ñoom ñoo koy génne segg ko nettoyer ko daal di koy dugal ci ay produits yoo xam ne daf koy mën a congeler. bés bu ko soxlaa dañ koy jël ñu décongeler waat ko rek fertiliser ko daal di ko koy placer. Euh, bu dee bu dee buñ buggee pousse tuuti ci ci préservation fertilité. am na ci mhm. euh, yenn yoo xam ne ni ovaire bi ci boppam lañuy ñuy dindi une partie denc ko ba nit ki soxla ko ñu ñëw placé waatal ko ovaire bi mu jàppaat. Euh, waaw c'est ça science xam nga day développer day day si day de moo tax nag c'est important ñu koy waxtaanee mm-hmm. nit ñi xam ndax xam naa ne bëri na ñoo xam ne ni tey jii comme ay Cheikh Tidiane xamuñu woon ne Sénégal am na loolu tey jii foo xam ne di nga mën a denc say ovule say nen comme on dit après bés boo amee boroom kër wala dara bëgg doom euh, mu mu génne ko et puis sax euh, sujet de réflexion la war a doon sax ci man bitim réew laa def noonu foofu rek la am Ah. léegi nag en Europe moom waaw euh, même aux États-Unis da ngay dégg message ñu wax loolu. Ah, même dans les films sax da koy gis dans les films. gaa ah, di am na sax dalal jàmm. moom muy foofu am na centre mais ubbeegul mais Sénégal mais équipé nañ ko et tout xam nga lu tax ubbeeguñ ko. et depuis quand la am Sénégal ubbeeguñ ko nag. bâtiment bi pare na mais ñu ngi ci euh, en cours d'équipement. et depuis quand la am. depuis 2008. Euh, bon mais damay dégg benn baat ci euh, médecine ci loolu ci ci wàll boobu est-ce que est-ce que loolu la in vitro. waaw moom la ñuy wax nii. Ah, une pàcc la ci in vitro. voilà très mm. wax ne la conséquence su endométriose bi mën na la yóbbu sax ba ci in mm-hmm. parce que boo demee ba nga ba nga am endométriose feebar bi di la sonal di la sonal day dem a dem ba rey sa nen yi mooy sa ovule ba mu jeex tàkk léegi nag bu fekkente ne yow ci jamono ji nga koy découvrir découvrir ko avant nga am jëkkër mën nga peut-être jël ko denc ko. le temps que ngay kii boo ovulé nga ba récupéré ko du noonu. exactement voilà c'est ça moi je pense que léegi loolu nag xam nga lu ma ci bëgg laaj. Mm-hmm. ci diine bi wax. moo tax ma ne sujet boo xam ne réflexion ah, lay laaj ci société ah, ah. oustaz ne waaw na solo parce que attention am na la ci diine wax. Hmm. fi mu toll moom domaine science bi tala suuf bu ñëwee nga laaj. waaw kay parce que li moom bu dee mu ngi si. moom laa koy laaj. wala wala <laughs> Oustaz Adi

gis parce que dëgg la il faut muy leer. lan leer no ngi leer boobu ba léegi yaa fekkee wu ba ñuy leer. Eh, sànq nen rek ngeen doon wax waxu leen woon nen ba kenn comprendre ba ba am na ñoo xam ne ngi toog ba ah, sax daan ah xam nga loolu waaw léegi c'est ñëw si euh, ndaxte yaa ngi woon sax ci euh, faj bi euh, yaa ngi woon ci loolee nga ne loo xam ne du wér dañ koy calmer. dañ koy calmer exactement alors faj bi. dafa am importance ñu wut ay centre yoo xam ne que ni dafay euh, mën a jël en charge pathologie yooyu feebar endométriose parce que du benn nit kese euh, moo koy mën def mm. li ci njëkk mooy prise en charge psychologique nit ki day soxla euh, une prise en charge psychologique parce que dafay am benn impact bu bu bu bu bu metti bu muy def mm. ci qualité de vie ci nu muy percevoir boppam moom ci boppam deuxième chose mooy euh, prise en charge médicale bi prise en charge médicale bi ay garab la yu ñuy joxe garab yooyu objectif bi mooy li ma wax mooy. Mhm. faute bi moo koy indi objectif bi mooy bloquer faute bi. Mhm. pour mën ko calmer il faut ñu bloquer faute bi. Ah nit ki di faute tous les trois mois wala tous les six mois. comme ça cellules yi dal daal di koy calmer loolu moo tax da ngeen di gis koo xam ne ni daana am métitu biir jël ëmb. wasin ci weer yi ci topp mu ne la pro amatul problème mu règle douloureuse. Mm. c'est parce que dafa toog ëmb ñi neuf mois. Mm. ëmb bi calmé ko. su jëlaatee grossesse assez facilement assez rapidement. Mm-hmm. Mm-hmm. dootul sentirati douleur. Mm-hmm. mais su toogee diir bu yàgg ay quatre ans jëlul grossesse. feebar bi day ñëwaat. Mm. donc molécule yi ñu am. am solo moo ñuy mooy yi nga xam ne ki nii dafay bloquer faute bi. alors molécule yooyu nag. bi ci njëkk mooy planning bi plus lu planning bi et loolu ça nous pose beaucoup de problèmes. parce que nee naa day dal ay adolescentes ñu seen yaay war leen a indil nga jox leen pilule boo xam ne que ni peut-être que yaay ji mu ngi koy jël. mu danaan lu tax ñuy jox planning sama doom au fait liñ koy jox du pour planning. liñ koy jox pour bloquer faute bi la ba nga xam ne que nii feebar bi du law parce que soo ko bàyyee rek feebar bi di law dina fex dina tax. moom bés bu waree soxla am fertilité mu am jafe-jafe fertilité donc comprimé yooyu c'est surtout pour que feebar bi du évoluer et su évoluer wul dina ko permettre bés bu soxlaa fertilité mu am fertilité normalement parce que du du atteindre nen yi du atteindre euh, trompe yeeg ñoomin seen am na yeneen molécules yu ñuy joxe parce que parfois nit ki du mën a répondre ci ci ci ci comprimé yi parfois ñu joxe ay injection pour gestion douleur bi mën nga dem ci ay anti inflammatoire ba ci morphine am na ñoo xam ne ki ni boo leen joxul morphine du ñu calmé wu pour vous dire intensité douleur bi nga xam ne ki nii moom la ñuy gérer et donc dafa dañu war a am ñoo xam ne ki nii également dañuy spécialisé wu ci gestion de la douleur am na centre yu koy def mais li gënoon ñu dajaloo ci benn centre boo xam ne ki nii dina mën a prendre en charge euh, euh, femmes yi am endométriose mm-hmm. bi gën a mooy opérer mm. opéré te xam ne ni opération bu diis la nag parce que lépp lay dindi lépp loo xam ne nii day indi ci dañ ko gis comme lésion day dañ maintenant nit ki su soxlaa euh, su defee ay grossesse am ba pare daal di ne euh, fi mu nekk nii douleur bi sonal na ma mën nañu dem ba dindi butitu njurukaay bi loolu moom moo koy calmer pour de bon mais tant que butitu njurukaay bi mi ngi fa buñ defoon opération bi tamit dañuy joxe après ay comprimé parce que sinon. Mmh. day reprendre. alors yi nga ne day yéeg ba fii nii yooyu boobaa kon comment faire. am na bu forme bu ci nekk ak ay traitement wam hmm. du lépp lañ mën a dindi. am na yoo xam ne nii bu yeggee ci poumon bi duñ ko hmm. dindi. par contre parfois comme day yegg ci poumon bi. suy hmm. suy suy gis mbaax. day am deret ci poumon bi parce que foofu tamit day gis mbaax. day dañuy parfois dañuy soxla def fa aiguille. xëcc deret bi. parfois ci biir bi la ñu soxla def fa aiguille dindi deret bi donc du yëpp la ñuy dindi et loolu moo tax on est toujours obligé tant que butitu njurukaay bi dañu bu ñu defee chirurgie ba pare tamit joxe médicament yi pour que dootul évoluer. alors euh, excusez-moi euh, docteur temps bi xot nañu vraiment c'est pas ma xam dama bëggoon peut-être mu joxal ma est-ce que du loolu mooy peut-être début cancer de l'endomètre. attention endométriose même processus que cancer la mais laalewul dara ak cancer. du début laalewuñ dara dañoo niroo parce que endomètre bi mooy génn di dox di dem fu nekk. Mm-hmm. Hmm. Euh, cellule yuy déplacé wu la comme cancer nu muy déplacé woo mais du cancer te du mës a nekk cancer du loo xam nekk nii dina euh, indi dina menacer pronostic vital bi maanaam mën na euh, faat nit ki non mais. dina ko indil jafe-jafe yu bëri ci ci ci wàllu qualité de vie ndax douleur bi muy ressentir tout le temps dina ko mhm. indil jafe-jafe ci problème mu fertilité mhm. mu li ma jaaxal mooy am na kenn koo xamante ni au début dafa amoon endométriose d'ailleurs moo tax peut-être amul doom ba cursus su viam yëpp à la fin dafa décédé de cancer moo tax ma doon wax est-ce que amul corrélation. amul amul corrélation moo cancer de l'endomètre quand même amul mhm. corrélation cancer de am na yeneen facteurs yoo xam ne nii ni euh, ñoo ko war a mën a indi comme am poids. nit ku am poids mhm. jël yenn âge yi mhm. am hypertension artérielle foofu la ñuy gën a mën a gisee cancer de l'endomètre dafa am malheuru ñaar yi daje ci moom mais mhm. amuñu amuñu rapport par en tout cas merci professeur kontaan nañ trop bi am na solo et que vraiment mënuñu ci woon yendu ah. man na fi ñëw lu bëri. waaw vraiment ah baabal leen ma ko mu fi. non day ñëw day ñëw après dinañ après dama koy jël hors antenne. dama koy jël hors antenne non man dama la rajo. la rajo ma maam Khady dee ma ko abal waaye. waaw dee ma ko abal alors merci maam Khady je suis très contente aujourd'hui mm-hmm. encore une fois comme d'habitude ah boo boo kontaanee rek ma kontaan vendredi. Ah. di la jox dig vendredi mu commencé jege njëkk ah. <laughs> mais ñàkk mercredi marché toj na fi yaa absenté woon culture joolaa la indi fii. Ah. bokk melaa non c'était ah, extraordinaire. culture joolaa nga xam ne dafa ma neex. dafa neex non barki démb moom toj na fi. Ah, vraiment vraiment mais ba tey non jege woo ko. waaw non ngi gi yaram moom ci nga mën a def lépp. du benn du benn am na fu mu toll ñoom ñaar ñoo nekk gum nii di xëccoo kii. waaw ñooy xëccoo kii. waaw ñooy xëccoo kii. bare bi du xëccoo kenn. déedéet. la santé avant toute chose voilà c'est clair alors merci Mame Khady on donne rendez-vous euh, mm-hmm. vendredi prochain inchallah jaajëfal en attendant euh, professeur euh, Mame Diarra Ndiaye mi ñu seet si woon tey je mm-hmm. rappelle que les gynécologues obstétricienne ci l'hôpital Dalal Jàmm nekk également université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar moom lañu amoon tey ci rubrique santé merci docteur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kenn dal ak jàmm mm-hmm. jumaa mu baraka yow tamit Mame Khady léegi ñëw ci les deux